tabaski ñëw naati noo ngi teewoo kooti bu wér te am na kat gaa yu teewul sant daa la nu war. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Assalaamy TV ñu ngi leen nii baax di leen siyaare di baalu àq si bis bu tedd bi ñu nekk di bisu tabaski di baalu ñëpp àq tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général des mourides suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér tey ñaanal jullit yëpp jàmm. Euh, feebar bi nga xam ne moo nekk si réew mi di coronavirus yàlla na ko suñu borom jël ak jàmm bak si Amadou Bamba Xaadim Rasul ñu fekk ko ay déwén yu bari bak si Amadou Bamba jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokku internet Assalaamy TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax fépp fu waay nekk rek ñu ngi lay nuyu di la wax yi di la baalo àq waaye tamit di la baalo àq di ñaan suñu borom boole ñu baal te jéggal ñu suñuy bàkkaar te ñu yàgg koo fekkee nag ay at yu bëree bari tey ñaan nag mbas mi lëmbe mim réew di Covid 19 gaaw génn bu nu mu gën a gaawee ci mim réew tey ñaan nag suñu borom Serigne Mountakha Bachir yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal ñëpp te di leen wax nag bonne de tabaski aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci chaîne bii di Assalaamy ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di sukkandiku ci bis bii ñu nekk di bisub tabaski di leen wax ñoo ngi leen di baalu àq waaye it ñoo ngi leen di baalu àq di baalu àq mboolem képp koo xam ne rek mas nañ ko ameel àq moo xam ñu yëg ko moo xam ñàkk ko yëg waaye di leen xamal ku ñu masal ku ñu mas a ameel àq it ñun baal nañ ko ci xol bu sedd guy yi di ñaan nag sama borom mu def nu ni ñu fekkee ren jii mu def ñu ko ñu fekkee ko waat ko ay at yu baree baree baree bari te at mu ñëw rek dàq ma weesu te mu boole ko ay xéewal yu bari lool ak wér jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk yi seetaan uh, asalaami maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen wax déwénati di leen baalu àq di leen baal àq nag di ñaan tabaski gi uh, ñu fekk ko ay at yu bëree bëri man ko tal ko. suñu borom yokkool ñu xewal yépp ñu ngi leen di baalu àq di leen baal àq déwénati déwénati déwénati. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di sàkku ngeen ñaanal jàmm ñu bokk ñaan yàlla suñ borom mi am jàmm te di ko jeexal mu defal ñu jàmm ju sax di ñaanal way dawli yi suñu borom xaare leen àjjana ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen balu àq nag te di leen baal àq ci li ñu jëm muy bisu tabaski bi. ñaan yàlla yàgg di ko fekkee te di ko tal yàlla yokk wér gi yokk man gi yokk jàmm jee xewle sutura si waaye teg nu nag ci yoonu siraata mustaqim musal ñu ci lépp loo xam ne dafay gàllankoor mbindeef na ab julit baaleen ñu àq ci lu ñu xam ak lu ñu xamut jëf walla wax lu weesu walla li ñu toll ba ci sax la ci kanam yal nañu yàlla boole jéggal déwénati jërë ngeen jëf. salaamaaleykum maa ngi ñëpp di ziare ñëpp di. jégalu ñëpp di baalu àq di leen baal àq euh, di leen souhaiter fête gu neex ñu feete ko ci jàmm al euh, xéewal yi baawaan saawaan ñëpp am jàmm daal jaajëf kon euh, mbeeɗo jam o fogole séréer in way simna nuun ɗayayo paax na kene roog a fi'an na in jàmm ref jam fa salam kon i simnayo fogole fop i mbaaswayo àq njegluwaayo fogole neenee tawata saa su ne mën a fàllu si la ah, asalaamaaleykum mbokki taalibe mbokki jullit yi ñu ngi leen di balaax di leen balaax saa ne te man di jéglu rek ah, ñi nga xam ne yàlla dañoo nattoo liggéey bi ñu ñu nekk di presse mu di leen jéglu saa di leen gën a ñaaxaat sama bopp ci ñoom te gën di suufee sama bopp ci ñoom nekk bi nekk rafetlu naa ko trop maa ngi di balaax di leen balaax saa su ne waaw fop mu koy waas nu waa fop mbasano fop fop a mbasanamo mbasano in tobeskin ne rooga fokata in wasan ngaɗa mbadin maad nu mbaan in fop rooga fiyana in jam jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi jégalu ñëpp di jégal ñëpp di ñaan yàlla jégal ñu ñun ñëpp te ñu fekkee koy déwén yàlla defal ñu nawetub jàmm ak Seexul Xadim te jege fi jële fi mbas mi fi nekk nag feebar bi nga xam ne moo tiital ñëpp yàlla suñu borom jële ko fi ak sëñ Tuubaa jërëjëf salaamaaleykum waa Salaam TV ñu ngi leen di bu baax di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom boole ñu baal man moom sama mbokk yi caméraman yi laay wax bon fête de tabaski di ñaan suñu borom mu may ñu gudd fan wér-gu-yaram yokk suñu xam-xam ñu gën a nekk benn gën a jàppalante jàmm ak jàmm la incha allah rabi bonne fête jaa ngeen jëf waa Salaam TV. asalaamaaleykum mbokk yi topp asalaam point net ginnaaw bi ñu leen ñu ngi leen di baalu ak bii di tabaski di ñaan suñu borom fekk lañu ko ay at yu bëree bëri di ñaanal xalifa bi suñu Muntaxa basi suñu borom yàggal ko fi moom mi yàgguñoo jiite ay julli julli barke xaadimu rasul barke Seydina Mohamed ma leen di wax ne bonne fête de tabaski déwénati. salaamaaleykum mbokki internet yëpp yi nga xamante ni yéenay bàyyi xel seen chaîne bi di Assalaamy TV. Euh, tey nag dañoo ñëwoon di leen baalu àq di leen balaax ci tabaski bi nga xamante ni di ñaanal ñëpp jàmm ak sutura ak xéewal mbas mi nga xamante ni moom mooy coronavirus jóge fii yàlla suñu borom dimbali ñu musal ñu seytaane ak cat waaye nag noonu la ñaanalee ñëpp nga xamante ni actuellement ñu ngi ci euh, wàllum audiovisuel di nuyu ñëpp di sant ñëpp daal wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Assalaamiya alaaji Fallou Sylla Baye Fallou Gala maa ngi nuyu mboolem koo xamante ne bii rek mu ngi leen di topp waa comme euh, ñu ngi fii nag fii ci euh, Touba euh, ngi fas yéene baalo ak ñëpp ci bis bu tedd bi nga xamante ne bii moom lañ nekk di baal ak ñëpp di baalo ñëpp ak di leen ñaanal jàmm di ñaanal Serigne Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér di ñaanal mboolem jullit mboolem murit di ñaanal mboolem taalibe di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci métier yi nga xamante ne mooy métier journaliste wala nga def communication ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu seen Alaaji Fàllu si la bu baax di la ñaanal jërëjëf. salaamaaleykum mbokk internautes yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen site internet assalaami point net ak seen chaîne euh, YouTube di Assalaamy TV nuyu nañ leen rafetlu nag ànd bi ngeen ànd ak ñun saa su ne. di leen balaax ci euh, julli gi di tabaski gi di leen balaax di ñaan suñu euh, yàlla suñu borom jéggal ñu ñu teewee ko ay at yu bëree bëree bëri yàlla musal ñu ci seytaane dolli xéewal yi jële fi mbas mi ba mbooleem àdduna bi yëpp euh, dellu ci jàmm ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi loolu te ànd ak wér santaat leen gërëm leen ci kóolute gi ngeen am ci seen euh, chaîne di Assalaamy TV waaye di sant tamit mbooleem personnel bi nga xam ne ñoom lañ àndal ci liggéey bi di leen wax déwénati jërë ngeen jëf tabaski ñëw naati noo ngi teewoo kooti bu wér te am na kat gaa yu teewul sant daa la nu war ki ñëw naati noo ngi teewe kooti bu wér te am na kat gaa yu teewul sant daa la nu war